Il faut d'abord reconnaître que c'est une journée mondiale. Au niveau de la région de Diourbel, il am ay association qui est environnement, nous wu en réseau. ñu tànn Nous avons organisé sama AVD bi di structure organisatrice fii nag les défis sont nombreux défis environnementaux yi à tout soo jëlee la foresterie wax nañ ci tey gis nañ ñun ba ñuy xale garab yi nañ meloon ci àll bi diggante saate fii ba njaarim dafa naatoon lool muy garabu meññeef fi muy lépp lu jëm si àll bi écosystème bi nekk lu rafet ñuy màgg di xool muy dem di dem ba léegi daanaka dara des fi gis nga garab yi fi tudd léegi muy lu mel ni xewar lu mel ni dimb lu mel ni bàpp gi lu mel ni yiir yooyu dafa ànd ak sunu culture ndax suñuy nettali sax histoire sëñ bi lu si bëri garab yooyu li ñu tudd ba mu toogee si yërga ba mu toogee si daxaar mais sunu doom yi soo leen ko laajee man ko laaj am na ñu ma si laaj xamuñu luy xewar parce que mbàkk képp amatul xewar te pourtant mbàkk xewar yi mooy koñ bi gën a rëy dimb génn dimb am na ku ne ma euh, dala xaw ma la gis gum euh, dimb yiir yiir yi nekk fii dee nañ benn yiir lañ am wala ñaar ñi ngi si boor yi saati côté yooyu donc tendance boobu su demee danañ perdre pan bu rëy si sunu patrimoine culturel économie et cetera parce que euh, garab yi rôle bi ñuy joué suñ ko doon wax fi duñ si jógee de mën nañu wax ne ñoo ñuy dundal ne serait-ce que gaz bi ñu renouveler euh, si euh, yi ñuy dégage ñun te baaxul te ñoom ñu koy ñoom ñu koy soxla dañuy jox li ñu soxla bon soo jëlee beneen domaine comme les déchets Touba Mbacké la conurbation j'allais dire toll na foo nga xam ne fii dañoo commencé produire déchets yu bëri d'abord mais déchets yu bees tudd nañ fi léegi les les les plastiques le péril plastique au-delà de ce plastique là il y a un plastique boo xam ne si conteneurs yi ak emballage yi lay lay feeñ soo demee fële si sort bi da gis ñu jal ko fa su ko jant bi e, laalee rek nga gis mu commencé dégager ak y a des brisures de verre ñiy liggéey si verre yi dañuy toj di jal fële yooyu yëpp day produits yu nga xam ne yi ah, avec le temps daf ñuy indil problème yu rëy mën nañoo wax batterie yi nit ñi dañuy mën manipuler batterie l' exemple de Thiaroye est là la zone et infectée ak yeneen ak yeneen gis ngeen hôpitaux yi centre de santé yi ñu ngi commencé bëri mais demal lépp ak mais y a des déchets biomédicaux et souvent amuñu ay unité de traitement bu approprié te moo ëpp importance ci li ñuy def lépp ak yeneen ak yeneen ñi nga xam ñu ngi fii ñu commencé koo xam qu'est-ce qu'il faut faire ñun ñi ngi jéem mais jàpp nañu li ci ëpp doole c'est la sensibilisation sensibiliser les les citoyens d'une manière générale mais surtout ces jeunes leaders là qui aujourd'hui ah ñu ngi commencé jël une prise conscience euh, environnementale conscience environnementale pour réaction bi nekk une réaction boo xam ne ñun ñëpp ñoo koy ànd def en tout cas loolu mooy suñu taxawaay ñuy sant nag autorités jàpp mu le gouverneur la maire et cetera toutes les autorités jàpp nañ ci parce que daje bu mel nii li muy am si yow yéen yéen ngi génn mais bëriwul cela veut dire que tey ah jàpp nañu ñoom jox nañ environnement gëdd environnement nag dafay lu transversal amul benn côté bu nga xam ni environnement war la soxal ñëpp la war a soxal te aujourd'hui aucun projet wala programme sérieux ne peut être conçu wala euh, ne peut aboutir sans la prise en compte de la dimension environnementale. constat bi mooy loolu garab moom gisatuñ ko fi ni yi fi nekkoon dañ nañ yi fi des ñu ngi koy dagg te kenn jëmatu ñu ngi saluer le président de la république mesure bi décision bi mu jëloon yaakaar naa daaw la journée de l'arbre ne léegi désormais pour avoir une autorisation de construire il faut que nga def si ne damay jëmbat ñaari garab ndax da ngay tabax say kër def lu ne bañ a jëmbat ñun sooy tabax tamit da ngay jëmbat au moins benn garab bon nous nous sommes en train de travailler ces structures là muy chef de service yi muy établissement scolaire yi muy fu mu mënti doon kenn ku nekk euh, fa nga nekk lala sa war nga def ndax sunu slogan mooy si chacun si mais le Bawal sera reverdit et prop mooy kenn ku nekk si defee loxoom rek Bawal dana dellu na meloon bu ñu xeeb ku nekk na jëmbat ñaari garab wala benn ndax ñun fii suñu kër yaatu nañ dañuy dañuy dañuy recevoir dañ siy màggal donc ne serait-ce ombrage bi ak euh, loolu nga wax ne dafay renouveler euh, pollution euh, atmosphérique bi mais donc ñun obligation la suñ ko jëlee daal comme sas te jàpp naa ni même diine ji ñu gëm sax ah si la ñuy si la ñuy gën a kii si la ñuy woo.